seen boutique médecine prophétique et traditionnelle di centre Ruqya de Kër Massar nekk fii ci jaxaay moo leen indil ay garab yu efficace yu pajum cosaan ak ay produits original yu ñu baaxoo ci pajum sunna maanaam doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci pàcc ak fagaru ngir am ci garab yi man ngeen ñu fekk fii ci jaxaay ci deux première dodane après rond-point jaxaay wala ngeen 33 875 10 20 wala 77 042 95 17 ak seen boutique médecine prophétique et traditionnelle du centre Ruqya de Kermesar, Jamba Djehna. mom dafa بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بقي انترنت بقي سيفر ام ام اس نيونغ لين دي نيو دي لين زيار دي لين واخ السلام عليكم ورحمة الله دلو سي وات ناك يين سي سين بنين ريبريك مي آه، نيغي دون وقتان اك يين سي سونو فيديو بي باسي ماجي بي نيو تودي ماجي بلانش موي جبارو خاتم اك لاسرا دونتي am na ci sénégalais yi ñoo xam ne ba léegi euh, dañuy bañ wala am na si jullit ñi de manière générale ci àdduna bi yépp ñoo xam ba léegi ñoo ngi am jafe-jafe ci ñàkk gëm ne euh, njabar gii di euh, ilmul asrar wala boog xam-xam bi di ilmul asrar donc lu ci gën a bare bari lu ci lu ci gën a bari donc xam-xamu njabar la xam-xamu xam-xamu njabar la c'est que njabar gi rek parce que comme donc ki koy def da koy jaare ci alquranul karim euh, loole moo tax mu jàpp ne du njabar mbirum alquran la léegi-léeg nga gis koo xam ne dala naan alquran laay def li may def yépp alquran la te fekkee effectivement waaye jabar lay def masalan fooy bii nga xam ne moom laa yor balaa may dem ak yéen ci yeneen fooy yi sax parce que li ñu war a décortiquer li ñu war a décortiquer ci wàll bi bari na waaye fooy bii ma yor tey masalan ben aya alquran la bu nekk ci suratu suratu yaasin benn aaya alquran bu nekk suratu yaasin fa minha rakubuhum wa minha yakuluun ak wa dallalnaaha lahum wa dallalnaaha lahum faminha minha rakubuhum loolu aaya alquran la ci suratu yaasin te aaya alquran bi boo xoolee niñ ko bindee ak noo mën a orienté fooy bi rek dangay gis ne aaya bi day juutu ci yow noo mën a orienté fooy bi rek gis nga fii dañoo commencé ci euh, fi nga xamante ne ni moom mooy càmmoñ jëm ndeyjoor xam nga alquran buñ koy bind càmmoñ ndeyjoor la ñuy tàmbalee di bind jëm càmmoñ waaye ñoom fii bi ñuy bind aaya alquran bi càmmoñ lañ tàmbalee jëm ndeyjoor no taxawale foy bi rek da ngay gis ni bind yi càmmoñ lay tàmbalee jëm jox te loolu xam-xam bu rëy rëy rëy la ci wàllum bind xaatim waaw lu dul bismillahi rahmaani rahim ji na ci kaw allahuma salli ala sayidina muhammad wa sallim lu dul loolu lu dul loolu xoolal lu dul lii lu dul bismillahi rahmaani rahim xëy na écran bi mën na bañ a leer waaye lu dul lii lu dul bismillahi rahmaani rahim اللهم صل على سيدنا محمد وسلم مانام لودول لي رك مانام دانيو جوتال بند مي تي القران بسم الله الرحمن الرحيم مام بات لا تي القران لول بند نانكو بند مو لير اللهم صل على سيدنا محمد وسلم لول بند نانكو بند مو لير مي لي نين دي غيس لي لي بند يي نين دي غيس اك كاري بو روم بي دنگ ني اوبي كو لول مو ياتو اك يي نين دي غيس ياب اب ايه القران بو ني جوتال الله ab aaya alquran bu ñu juutal aaya baa nga ci sóoratu ci sóoratu euh, euh, euh, yaasin dinaa ñëw ci secret bi nga xam ne ñoom moom la ñuy jéem a dàkk ci aaya bi parce que problème bi yëpp secret yi ñoo ñu ko indil lu ñu wax rek ñu ne secret secret secret secret yi sóoratu yaasin secret yi nangam secret yi nangam secret yi nangam gis nga baatub secret boobu ci la ñuy jaar doomi aadama yu baree bare di leen dugal ci ay tooxi doona te duñu ko yëg sama yaram day daw baatub secret nangam kaay ma jox la secret nangam sëñ bi jox ma ci secret yi gis nga secret yooyu ñuy laaj ci la ñuy dugal doomi aadama yi ci ay musibay bab ba kumba te duñu ko xam nga ñoom dafa am lu ñuy dàkk secret bu ñuy jéem a dàkk ci aaya bi te aaya bi ni ko yàlla wàccee santaane nañu ko jànge noonu dégg nga maanaam buñ ko defewee noonu secret ya nga xam ne ñoom moom lañ bëgg ca aaya ba duñ ko ca amee duñ ko ci amee te ko ci doon waxtaanal danaan lépp ci alquran la alquran bayi dara deng nga alquran bàyyiwul dara mais yow dàll yi ngay sol sax boko ko juutalee amal njëriñ dal yi ngay sol laa wax boo ko juutalee amal njëriñ mbindum nasaran boko ko juutaloon du tekki dara mbindum nasaraan laa la wax sidi va à l'école boo ko juutaloon du tekki dara dégg nga donc lépp lu manti doon maanaam caabi ji ngay ubbee sa buntu néeg boo ñëwoon rek fi nga damay ji juutalal nga xool ndax di nga ubbi doo ubbi dara donc lépp loo xam ne daa am nu muy doxee boo ko dëppee mu indi la problème mu am ay conséquence léegi nag lan moo waral bu ñu jëlee aaya alquran bi dàkk ci ab secret daal di koy juutal bindee ko lu ko yàlla santaanewul lan moo tax muy dëppook léeg-léeg ñoom lan bëgg am maanaam lu tax léegi léeg la ñuy dàkk di ko am foofu la aspect mystique bi nekk foofu la aspect njabar gi nekk te dinaa ci ñëw bu leen yàkkamti waaye nañu wax rek ci fooy bii ni ma ko tàllalee nii te lii benn la ci fooy mais ñaare xaati mi ñu lay jox yëpp naan lan alquran la nii lay demee yow yaa jàng rek wala xëy na mënoo koo gis gis nga fooy bi te lii xam-xam dëgg la nag maanaam lii ki ko doon defar ko ku maanaam bon nit nag bu xereñee ci benn mbir nga nangul ko ne daa xereñ loolu dara newu ca nit ki bu xereñee ci benn mbir nga nangul ko ne daa xereñ donte ay caaxaan la xam nga am na bokkaalekatu yàlla ñu xereñ ci bokkaale li ñu aaye ci bidaa maanaam maana day taali maanaam nit léegi léeg mu nekk ci lu bon ba noppi nag man ko lool kii maanaam xeetu njabar gi lu bon la waaye léegi léeg nga fekk ci ñoo xam ne dañ koo man lool donte lu bon la aaya alquran bi dañ koo dëpp anam bu ne maanaam fooy bi noo ko taxawale rek noo ko taxawale noo taxawale fooy bi rek aay bi day dëpp loolu aay xarañteef dëgg la <laughs> loolu yombul de noo ko juutale fooy bi noo ko juutale noo taxawale fooy bi rek dégg aay bi aay bi day day dëpp te leneen li ci des mooy mooy ñoom càmmoñ lañ tàmbalee bind jëm day joor te it nag maanaam fi ñu tàmbalee foofu lay jeexe maanaam araf gi ñu tàmbalee mbir mi araf googu lay jeexee <laughs> waaw araf gi non gars yi dañoo xereñ tuwarka la maanaam tey masalan fii boo jëlee fii nga gis fa min ha rakubuhum gis nga dafay jeexewaat fa fa la tàmbalee fa lay jeexee nga defaat nii mu tàmbalee wa wa zallalnaahaa lahum gis nga wa mu tam mu jeexawaat wa gis nga mu jeexawaat wa nga xam ne loolu maanaam sew-sew bu yéeme moom maanaam maanaam moo ci nekk moo ci nekk kon lii leer na ne yax bi yax bi aaya alquran la moo tax yow mi jàngul dañ na gis nga ñun alquran rek la ñuy def ak lay jox fooy bi boo jàngul diine da ngay gis ñu bind ci ay arab rek bind ci kaw bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim nga gis nga gis lan nga gis ay ay ay arab ñu bind ay bind arab nga ne waaw lii de alquran la ñu ne la xoojal sangu wala ñu ne la euh, ëwal takk tàmbale ëw takk wala ñu la suul ko ci buntu kër gi wala suul ko ci kaat koñ ci terrain bi wala nangam nangam nga def naan alquran kese la man du ma laal yëf yu ñuul yi alquran laay laal fekk ne da da nga dawee ci douche bi dugg ci fosse bi rek da nga dawee ci douche ba dugg ci fosse bi waaw maanaam da nga dawee ci douche ba ndax xet ne pëtax ci biir fosse bi doon daw xet te douche ba far ne pëtax ci biir fosse bi rek mooy mooy nga daw njabarkat yële mooy féticheur ya daal di ñëw daanu ci biir fosse yi te mooy ñii nga xam ne nee nañu la ñuy def alquran la te fekk ne njabar bu gën a garaaw njabar yi njabar gi nii ci la bokk euh, beneen bir mi nag mooy lu tax gaa ñi léeg-léeg di dàkk aaya yi wala balaa may ñëw ci lool sax jabar gi nii lan la jabar gi la plupart dañ koy boole ak li nga xamante ne nii mooy euh, maanaam kii euh, euh, mbott mbott mbott lañ koy booleel mbottu benn xeetu malala boo xam ne xamuluma ko ay lor mbott amul ay lor te booy seet bëriwul ci mala yi lu amul lor bëriwul ci xeeti mbindaa fa ni lu amul mais mbott mbott amul ay lor wala boog mbott bokk na ci mala yi gën a sell yi nga xamante ne nii ñoom ñoom dañoo bëri jàmm ndeysaan ñoom mbott dañoo bëri jàmm moo tax ba dinañ ko ba ci ndox rek la ñuy dund seulement que ne dañoo lakkale waaw doxam gaawut moom mbott doxam gaawut te ñeent tànk la yor dégg euh, mbott maanaam mën nga koo jàppe côté bu ne du la xusi du la màtt moom mbott façon yii buñ ko boolee dereetu mbott lañ koy jaxaseel dereetu mbott xoolal nga jël aaya alquran bi jël mbott daal di koy rendi dagg dagg maanaam rendi mbott bi ci baat bi ngay dagg lam set jël deret bi daal di ko ci suy wis ko ci moo tax léeg-léeg dañ koy booleeg dañ koy booleeg xeet bu xaatim bu mel nii dañ koy booleel dégg nga fii nag li ma wax nii fa laay yem du ma ci développé trop parce que vraiment boo yàggee day da ngay mel ni ku bëgg a sant nit ñi ñu ne nan ko def waaye objectif bi du leen du dara lu dul maîtriser nit ki maîtriser nit ki ba boo nekkee moom loo def mu supporté la loo def ci lu bon mu supporté la masalan ñiy liggéey ci entreprise yi dañ koy def directeur entreprise yi moo tax léeg-léeg nga mën a gis bokkul ak nopp bokkul ak nopp nopp mooy xëcc nit ki mu nopp la bëggeelam xolam ngay xëcc jëme ci yow ngir mu nopp nopp la kooku ñaaree góor moo koy def jigéen baa jigéen def ko góor mais bii xeetu nopp la mais am na différence différence am mooy kii nit ki day mën a noppi ci say mbir day noppi ci say mbir maanaam mën nga ko def ab juge boo xamante ne nii day nopp ci mën nga ko def ab procureur boo xam ne day nopp ci say mbir man nga def ab kilifa boo xamante ni moo la yilif man nga ko def sa waajur wu góor wu jigéen man nga koo def sa soxna soxna si mën na koo def borom këram man nga ne ci entreprise bi def ko directeur entreprise bi dégg nga nga xamante ne nii dañuy noppi ci say mbir yow maanaam lool def rek dañ lay supporter loo def ci lu bon ak lu mu mënti doon dañ lay dañ la koy dañ la koy nangul dañ lay supporter dañ la koy nangul xeetu njabar la gu garaaw a garaaw boo xamante ne nii bari na lool nag lu muy am ci réew mi bari na lool lool dégg nga lu muy am lu même man nga am ak nit relation sax am ak nit relation mu def ko mu def la ko te bari na lool ay directeur société ak i directeur entreprise yoo xam ne seen bara yi ñaari xeetu njabar gi dañ leen di def léeg-léeg nga gis koo xamante ne nii ab directeur entreprise la mu am benn bara droit léppi entreprise bi ci kooku lay jaar balaa moom mi moom entreprise bi sax mu koy yëg bu ko defee léeg-léeg nga gis ki bon jaxasewu ma diggante ñaari nit waaye boolewu ma kenn it waaye dafa bëri lool lool dégg nga xeet yi nga xam ne dañ ciy noggutu nit dégg nga di ko indil ay jafe-jafe yu nekk ak gàllankoor yu nekk ci bërëbu liggéeykaayam fa ngay comprendre wala fa ngay yeewoo day fekk waa sori na lool ci yow xeetu njabar gi la plupart moom muy mooy te xeetu njabar gi soxlawul nga lekk loo ko dara mbaa nga naan loo ko dara soxlawul nga lekk loo ko dara mbaa nga naan loo ko dara donc encore une fois lan moo tax ñuy def lii lépp lan mooy suñu objectif amuñoo kenn benn problème mais dañoo bëgg a yee sénégalais yi dégg nga parce que sénégalais yi wala ñi xamna ñu ne xarfa fufa dem nañ legi alhamdullah ba comprendre ne xarfa fufa mbirum fetish mbirum mystique de nga rayal ginaar sàngam rayal xar mi rayal bëy bi génneel sarax nangam sénégalais yi wala julit ñi de manière générale tàmbale nañu xamne lolu baxut même ku koy def sax xam na ne lii baaxut lii du dina ku ñu yóbbuwoon ci xambu yi sangul ci xambu yi yóbbu la ci ay fetish jëndelo la ay sàngara ak yoyu xam nga ne doo def ndax wala même boo def dang koy tay mais xam na ne lii baaxut problème bi kay mooy ñi nga xam ne ay ay ustaas lañ ay imaam lañ ay nitu diine lañ ay kilifa diine lañ dégg toog ci diine ji ba noppi nag di defal nit ñi yii te di ko delloo ci alquran loolu moo leeragul ci bopp nit ñi objectif boobu képp la ñu am ci décortiquer mbir yu mel nii wan leen ne lépp a yem lépp a yem mu ngi mel ni nga dawee ca douche ba rek daal di daaneel sa bopp ci biir fosse bi naan man duma dem sa njabarkat ya mbirum njabar moom du ma ko def du fetish, laal fétiche du ma laal yooyu yëpp du rey rey deret waaye nga mën a dem ci koo xam ne day jël alquran benn ko dëpp ko juutal ko def ci muy def jox la nga gis ay arab yi ñu bind rek nga naan kii moom alquran la di xooja ka sangoo ka jàmba ka ëwa ka takk loolu mooy musiba bi kon mbokk jullit ñi nanu bàyyi xel bu baax te yeewu jabarkat yi léegi dañoo déguisé ay oustaz déguisé ay imam digizeu. wu ay kilifa diine déguisé wu ci anam bu nekk nga leen di gis lépp nag lu ko waral moom mooy fënatal ak nax li nga xam ne moom mooy doomi aadama yi ku yebu nga yeewu te dem jàpp ci sa borom tabaraka wa taala te jaamu yàlla wóolu ko te doyloo ko bàyyi ko sa bopp soo feebaree nga dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy def ruqiya ci réew mi ñu ngi fi alhamdulillah ku ci koo wóolu wóolu pas-pasam wóolu ak doxalinam ba dellu ci moom te dimbali ko yàlla mi nga xam ne mooy kenn tey dimbali ñëpp yàlla nu yàlla defal tawfiq ñu yem foofu ba beneen yoon ñu ñëw ak yéen ci beneen décortiquer mbir yu mel nii واخر دعوانا الحمد لله والسلام عليكم